couleur urbaine léegi euh, tamit li may bëgg tamit euh, comme instant bi euh, mi ngi ak guitare bi amaa mooy dugg ak moom si waxtaan mu def playback maanaam live and direct ok noonu lay demee léegi dañ koy bàyyi ak gitaaram am mu dugg live and direct ok noonu lay demee ça se passe sur la Mermoz Fréquence 93.5 Son del mar morrino, vamos se llama MSGL. May again. grace kabila ta jai dama amigan nike amimo ok noonu lay euh, demee noonu lay demee am na instant bi ñi nga xam ñi ngi deglu euh, couleur urbaine ok bëgg nañ ok noonu lay demee léegi euh, dañ lay bàyyi nga présenté wu ñi nga xam ni xamuñu kuy Modou mbaay tamit ñi nga xam ne dañ ko doon laaj kan mooy Modou Mbaye pour ñu xam live en direct kan mooy Modou Mbaye en plus tamit képp ki nga xam ne bëgg nga dugg ci émission bi live on direct nga am am question bu xam da nga koy posé ba nga ko composé 88 628 16 50 ok noonu lay demee léegi dañ koy bàyyi mu wax acca. Eh, asalaamaaleykum Tafa maa ngi lay nuyu bu baax. Teuf Connection maa ngi lay siyaare bu baax. Eh, di nuyu sama jigéen ba la nekk ci technique bi di eh, di leen ñaanal jàmm di siyaare waa Ngaye FM yëpp. mboolem auditeurs yi di leen nuyu bu baax a baax a baax di nuyu waa kër gi yëpp. di nuyu tamit euh, dëkk nag boo fi duggee da ngay borom kër gi. di nuyu monsieur le maire di nuyu waa dëkk bi yépp hmm. ah di siyaare tamit ah, waa mbir na xaar ga di leen nuyu ñoom ñëpp di ko dale ci sous préfet ak ah, ak suwem di nuyu tamit ba ay maktin mi borom dëkk ba di nuyu sama mbokk yooyu ma nga xam ne ñoom dëkkal hmm. muy jabel ñëng ak ah, mati diouf soxnaam ak ñoom malik jombaxa ñoom omar ak ñoom doya ak ñoom eh, eh, xale yi nekk ci kër ga yépp rek maa ngi leen di siyaare bu baax ñoom bind ñëpp maa ngi leen di siyaare bu baax a baax a baax ak Anta euh, aw pour këram maa ngi leen di siyaare bu baax di leen ñaanal jàmm bu baax. Hmm. waaw. waaw comme par exemple tamit euh, bëggoon nañ xam comme euh, expérience maanaam expérience bi nga xam ni jot nga ko am si musique ak tamit sa jaar-jaar maanaam ñu def rétro tuuti si sa carrière maanaam fi nga dooree ba si jamono jamono ni instant yi nga toll. waaw man maa ngi tàmbalee musique presque maa ngi tàmbalee musique Fass. Hmm. Fass Payotte hmm. bi ñu fa nekkee nga xam ne Fass Payotte dafa lakk ñu dem tuxu Fass bâtiment ci instant boobu ci laa tàmbali def musique hmm. mais lu jiitu loolu nag doon naa ànd ak ak euh, musiciens yi mel ni Baobab di leen fréquenter depuis bi ñu nekkee ngalam euh, point un euh, dem leen fréquenter di ànd tamit ak sumay xarit di dem ku mel ni ki Papa Ndiaye Géwal ku mel ni ki ñoom Goma Ndiaye Samb bi nekk orchestre national ñun ñëpp ñu daan ànd tamit di fréquenter Miami ak Ba Ibra Kassé Euh, après loolu tamit yaa ngi wax lu yàgg de parce que tamit ku ni ku ni Paye Bada Kassé tamit je crois ñu bëri jaar nañ si loxoom ñi nga xam ni euh, maanaam ay teg ay ay bopp lañ si musique ah. jaar nañ ci euh, kooku mooy Papa Aline Kassé waaw mooy Papa Aline Kassé kon képp ku jaar si kooku noonu kon tet nga waaw léegi foofu noonu ñu dugg fa tamit nga wax ñu tamit expérience bi nga xam ne waaw paa boobu bu fekkee man dem naa tey ba mën a def musique hmm. di a ñaw tamit ndax d'ailleurs la hmm. kooku mën naa ni yàlla ak moom la hmm. ndax fu ma dem dinaa ko Euh, manam bima diké pour bëgg def musique ci mom daf ma ni xalé nga ma fekk ko buntu miyaa mu tok ma wax ko ko man ma demal nga dem jàngi métier da ngay jàng man ko dédé man ma demal nga dem jàngi métier lan nga def man ko téer la man ma bo bëgg bo bëgg bo boo man teer man musique dina mëna a nekk mais ci kaw nga jàng sa téer ba paré ma ko lool nan la nekk man ma ñaari at ci kanam ak at bi ma nekk bu ma la fa gisati lolé ma respecté ko ba jour ba fay demal fekk na danaka bo mokkal na sama métier fekk ko fo nako yalla yeureum yërëm bu baax euh, mo dajja fa ak moustique njaay ak euh, marsek yalla dogal mu ñu teug ben morso mu wax ma ni ma jógal ko woy ma jog ma woy mu dal ni bala morso bi jeex sax mu ma doyna ma dal ni kon day yàqu ndax mag ma toll ni ak ni ma ko bëggee woon bu ma woy mu ma doyna kon mom limaw def dara baaxu ci ma ñew tok man ma ah kay li nga def baxna am nga baat bu neex man nga woy am nga technique mais nak da ngay dem ko wuti experience mais est ce que lool yeb du comme par exemple dal don nat rek dal don nat parce que tamit euh, euh pour ñu tester la peut être comme non la fay dem est ce que bëgg bëgguloon xam que réellement que que ni euh, li ngay def bëgg ko moo tax yooyu la ko don def waaw parce que ko xamni ne ko gis mu woy hmm. nga ñew fa fekk fa ay professionnel hmm. ñun la jogal nga woy li ma lay wax ni am na gars yoo xam ne jaar nañu Sarbane xam nañu bu baax a baax a baax a baax paa bi paa boobu nan la melam parce que bañ na ko ba boo fa daan jógee nga xam ne da nga nekk star pour nga mën a jóge fa dem ci beneen orchestre wax léegi nii dafa am solo. Hmm. daf jox diplôme. Hmm. am na gars yoo xam ne jóge nañu star band dem nañu am nañu seen orchestre boobu te amuñu diplôme maanaam dañu da leen a dàq wala ñoom dañoo gën dem mais boo fa nekkee ba mu yiwi la hmm. daf lay jox diplôme diplôme boobu ku mu ko ci jox ku ne ci musiciens yu mag yi jàppal ay number one ay ñoom Doudou Sow ay ñoom Marsek ay ñoom Youssou Ndour ñoom ku fa jaar ak ñoom Pape Fall gars yooyu yëpp kenn ku ci nekk am nga diplôme boobu hmm. boo amee diplôme boobu rek da dama tubaarikaal mais man nag yàlla dafa dogal bi ma waxee loolu dama faa daal quitté ma dem Casamance hmm. def foofu sept ans expérience nag foofu laa ko gën a liggéeyee hmm. parce que loolu moom waxal noonu bi ma génnee laa ko gis bi ma demee ma suyee ak groupe Africa maanaam groupe boo xam ne ñoom ay soose lañu man rek la ñu woy du man maa ci woy wolof joge ci groupe def batalo jola 3 ans ak ñom hmm. di jouer tamit benen orchestre ok léegi si biir batalo jola da nga doon jola fofu wala na fa demee wa def nañ fa ñetti at ci biir di jouer boobu ko commandant doom fay mo fa nek loolu loolu la daan demee souvent bo leen daan jël ñan ñan man classe ngeen daan jël parce que tam des fois je crois ba yi day am classe wa dafa am restaurant wa comme classe ça dépend comme ñi nga xam peut être VIP wala lan ñan am ñepp ngeen daan jël wala na la fa demee wa moy dafa am dafa am euh, restaurant am amna am bu nek ci souf hmm. mais yooyu ay ay ay ay banc la rek ñu traversé teg ko nii nit ñi dañuy toog foofu. Hmm. am na beneen boo xam ne boobu biyaay bi moo nekk ci kaw mooy restaurant bi. Hmm. boobu maanaam officier yeeg baana baana yeeg ñëpp ku fa dugg obligatoire da ngay jënd sa consommation. Hmm. parce que restaurant la am na reer am na lépp am na añ am na lépp ci biir comme nii la rek ñu toog suñu saal. mais orchestre bi tegu ci biir ñu dëgg. lépp a ngi ci biir nag. léegi tamit comme par exemple expérience boobu noonu nga amee nga jotee amee euh, Casamance. tamit sonorité boobu parce que tamit ñu bëri xam naa dañ xamul parce que tamit maa ngi koy maa ngi ko doon waxtaan ak sama benn copain man ko bu ñu demee ba ci kanam peut-être que Casamance booy doon berceau berceau maanaam ci wàllum culture. parce que am na soose am na joola maanaam multi boo naan melting pot jaxasoo dëgg ak comme ni ñu koy waxee rek richesse culturelle da ngay dem ba côté Casamance léegi. expérience bi nga fa jot laa bëggoon nga joué ma ko tuuti noonu si sonorité yooyu noonu Casa Séye